depuis xam nga le sport à l'origine avec deux significations bi mu bi nga ko créé en Angleterre vers les euh, au dix-huitième siècle dix-neuvième siècle deux significations la woon euh, moyen d'éducation des enfants à l'école mm-hmm. et moyen de loisirs pour les adultes mais après sport développé développé wu ba nekk léegi enjeu politique bi kenn mënatu ko dindi c'est-à-dire que il faut que les gens comprennent que le sport est un enjeu politique un enjeu financier un enjeu économique et un enjeu culturel mm-hmm. il faut composer avec cela parce que c'est le sport qui s'est développé et qui devient un enjeu politique état bu nekk loolu moo tax léegi tous les états au monde ont mis en place des politiques sportives mm-hmm. pour permettre à leur jeunesse de défendre valablement leur couleur parce que sport léegi moo remplacé guerre yu njëkk yi mm-hmm. xam nga bu njëkk les pays doon guerre léegi nag rencontre mooy guerre. Sénégal waa kañ le Sénégal a battu le Sénégal domine le contre attaque cest à que léegi sport mooy guerre moderne et boo gañee mhm. sa cohésion sociale day yokku sa sa sa sa sa waa dëkk du ñu am du kontaan am affirmation de l'identité nationale du ñu kontaan nekk Sénégal lañu bi ñu gañee France. 2002. Mhm. Mhm. France Sénégal yi nekk ci monde bi. ku nekk da nga jël sa drapeau Sénégal génn si mbedd mi pour wone ni moi je suis sénégalais je suis fier d'être sénégalais mon pays est un pays fort. Mhm. il a battu la, la France, France coloniale. Mhm. c'est-à-dire c'est un message qu'on rend loolu la wax affirmation de l'identité nationale. export léegi dafay loolu lay jëriñ. joxe une image positive de ton pays montre que tu as une jeunesse saine tu as une jeunesse éduquée tu as une jeunesse forte. Mhm. donc loolu mooy enjeu politique bi et les politiciens dañ koy récupérer. am na benn anecdote bu may wax toujours euh, en 2002 bi Ablaye euh, président Ablaye Wade jëlee ballon bi ànd ak euh, la premier ministre Mame Madior Boye di wër naan je récupère mon investissement beaucoup de gens n'avaient pas compris li muy wax or à à cette époque-là moi j'étais conseiller technique du ministre Joseph Ndong on avait pris Bruno Metsu comme entraîneur de l'équipe nationale uh-huh. et trois mois fayuñu ko or il a commencé à travailler et à faire des résultats ñu dem le premier ministre de l'époque Moustapha Niass à juste raison avait dit que mënuma fay onze millions entraîneur pour équipe nationale de football parce que à ce moment-là le football était au plus bas mm-hmm. ñu jaaxle parce que nous avons il la pression de, de la presse qui disait que Birame Sy léegi mu gedd kenn fayi ko ñun amuñu onze ministère sport budget amul onze millions mu fayee Joseph Ndong est parti voir il lui a expliqué la situation ah euh, Malick Sissouri yàlla na ko yàlla yërëm ni ko Malick Sissouri a signé un contrat avec un entraîneur qui a, qui commence à faire des résultats c'était onze millions et jusqu'à présent mënuñu ko fay parce que le premier ministre nee na il va pas payer onze millions à, à un entraîneur Abdoulaye Wade moom c'est un c'est un il est très pragmatique il dit il aucun problème je vais les je vais payer Bruno Messi pendant un an sur mes fonds et c'est un investissement que j'ai fait pour la jeunesse et pendant un an Ablaye Wade moo fay 11 millions Bruno Messi pendant un an moo tax bi mu bi mu jëlee bal bi naan je récupère mon investissement le ñun ñu nekkoon ministère des sports xam nañu li muy wax. mais ñi ñi comprendre. comprendre loolu donc le sport est un enjeu politique. cest à kenn mënu ko dindi. léegi nag politique bu sport dafa dafa dafa dafa nuróol ak politique politicienne. Mhm. c'est-à-dire c'est une politique sportive parce que le sportif aujourd'hui le médaille sportive c'est un produit